Ibinangumba tamabaya Manchumana lakadumara Tanamayi Nimi kumalaw Ano kisa? Muna! Lami nyon! Bibebe! Wa! Nyona! Dakor bangi nyong! fekk nag na mu neexalee baat ba rek naaj moom ay way wallahi bu dul tukki daal doo mos dëkk ne way kon boobu moo mën wëy ay waay yéex naa tudd dëggal yam na ci àdduna ay coono gi ma nekk woon yëpp at yi passé ngën moom laa yàlla rek ka baax li tax jaamu yàlla baax loo ko ñaan rek mu may baax weeru koor bi rek passé la ma ko ñaanu gis nga lu ma defal ren yokkute la ah? nii la góor daa war a liggéey jigéen war a liggéey moo tax moom moom liggéey kii de moom kër waa bii waaw waaw maa ngi nii de gis ak coono sonn rek ah sonn nii yow la war a fi nga tey ji moom nooy na lii de laa def bañ nga mer rek di mom bu ko bàyyi. billaay jigéen mom day yaañ de di mom ni de laa ko na a jappé ba ko di jeex. waaw. mo dama ko doon. ay man mom yéex na ki da ngaa leer. yo bu ma la jégué yo yo ya ma ko wàll gisoo ni nga mel. man nak dama soxla won xaliss pour jënd accessoire ay yoy non ci wéru koor gi. ah accessoire lan. pour wéru koor gi suba. suba. déglul day koor koor koor weer bi est-ce que dina feeñ tey weer bu suba ginnaaw suba la war a feeñ. non weer bi feeñ na rek. weer bi feeñagul di weer bi eh, yow. tam la daal waxuma loolu yëpp damaa bëgg nga jox ma xaalis ma dem jënd li may def si koor geeg yooyu noonu accessoire yi yow mënoo wax tey ba weer bi feeñul yow da ngay déglu rajo mais dafa mel ni sa nopp yi da nga koy eh, ablé. ma ne laa mi ñëw déglu ma bu ñu werante weer bi barke démb la la la laaxu. bu ko day am ñaari fan mu door ak génn weer bi mënul feeñ tay non non xamoo li ngay wax suba la ñuy. asalaamaaleykum. maaleykum accident eh, ndeysaan agsi nañ agsi nañ agsi nañ. ñëw waaw ba ñëw naa dikkal agsi nañ. Moussa tok le waaye yow. toog leen dikkal ku eh. si woo fa ñëw. gën ngi ñoo ngi de bëgg sama yow na nga désolé Eh, salah benar. Main ni. Anjau. Ini saja. Anjau. Salah. Benda yang kau pun main. Ya, ni jodoh dah hamsa. Baik, yang dia mana kita ada di sini. Wow. Kimo. Mana Musa? Musa. Wow. Mana dekat? Nyaw ni. Nyaw ni. Dekat nyaw lah. Wow. Musa nyaw lah. Wow. Yang nak. Kalau ada tu. Nyaw Ifa. Yo, ada saya. Ada saya, ada saya. Kamu ada saya. Ada saya. Ada saya. ndax ngeen dugg see kër jàmbur rek commencé di waje jëj waje jëj ma ne ñëw demal ci waañ ba sa cin bi balaa muy kii waaw papa maa ngi di bàyyi kon maa ngi si biir tey nga ne suba dana ñaar waaw d' accord loolu problème yow di war ko sax dama am émérite quoi dana am la émérite loolu la ah maa déggoon ñoom baax na émérite doo war bon na de ay waxi émérite ak yooyu indi lii fii hôpital fii du dispensaire du pharmacie lu leen fi ñoo ko defandoo man yow sa doom comme que nag fekkee nañ ren mu bëggoon nag ñu baaxantal waxoon naa ko bu ñëw sama papa ji moom mooy loolu quoi eh, mel ko lay siis ni damaa kër bi du sa kër en tout cas fii kër jàmbur la bu leen may àq damay seetu nii damay seetu de kii bëggul cëmbal cëmbal yooyu dañoo ñu def sax ñu àgg ci biir yéen eh, yéen doo leen toog waaw jël sa temps dañuy dugg si biir.